ku ne ah sama gis-gis ba gàtt bokk on me dira euh, les dirigeants sont à l'image de leur peuple mm -hmm. moi les peuples sont à l'image de leurs dirigeants ka ca bopp ba mm-hmm. bu tegoo ci yoon rek lépp tegu ci yoon 2012 à 2024 on a eu la malencontreuse idée d'avoir élu un régime mais <laughs> lan la jur scandale sur scandale bu bopp bi baaxee rek la ca baax léegi nag bopp bi. Mhm. mooy tracé mooy teg affaire yi ci yoon ñëpp ne ca vous êtes délégataire du pouvoir du peuple à vous de diligenter vous êtes délégataire pourquoi parce que vous avez montré et voulu ou alors vous avez fait preuve de si euh, d'un si grand patriotisme mhm. au point de dire que vous pouvez régler le problème vous êtes élu à vous maintenant de régler le problème de faire de sorte que jeunes yi xale yi. Hmm. ñu changer mentalité sénégalais yi change façon de voir de voir de faire lan moo tax ñuy changer façon de faire et de voir. Hmm. allez demander aux Américains en 1930 la crise de 1929-1930 qu'est-ce que Franklin Delano Roosevelt le seul handicapé président du monde qu'est-ce qu'il a fait autant <laughs> looloo dimbali américain yi. Hmm. qu'est-ce que Mao Tse-tung ak Deng Xiaoping on fait pour la Chine le leadership mooy changer dëkk. sëñ bi qu'est-ce que Mohamed El Khadafi a fait pour la Libye et les Arabes quest que l'Iran a fait ak Ali Khomeini sëñ bi qu'est-ce que Hafez El Assad a fait pour la Syrie ak doomam France ñëw ruube jaxase parce que dañoo soxla woon gaz taal Syrie lan moo apaiser guerre bi Syrie il a fallu Russie dem taxaw. kañ nga gëj a dégg Syrie ñu ngi kaa réglé. même lu mu metti métti ñu ngi taxaw ñu ngi defar gis nga réew base bi leadership la. population yi ay muy man yow ma ñun ñëpp ku si nekk am na fu mu juddoo am nu mu yaroo am nu mu mel am nu mu nangam nangam ñëw ak jikkoom léegi nag pour mu nekk mouvement d'ensemble mais ça s'organise ki c'est organise. Hmm. ka ne ca bopp ba nan la kaa organiser. bon gars yi dëkk bi on voit que nii lay demee maintenant on veut que ça se passe comme ça ça va se passer comme ça ginnaaw ñun ñoo leen dénk délégué leen. Mhm. ne leen doxal leen ah bu ñu doxalee ñu ne leen waaw bu dëngee nag ñu ne leen attention mais ci biir loolu. Mhm. Sénégal mentalité yeeg TikTok on l'utilise mal Facebook YouTube on utilise mal. Mhm. on n'exploite pas ça comme il faut mais ah ki nga xam ne moo jiite réew mi ak ña mu àndal. ñoo ñëw ne il faut qu'on change les paradigmes. ñu tegaat il faut qu'on fasse sorte que. Mhm. la baaxaloon sunu ay maam ya bu jëkk mhm. mhm. ba ñu daan dund ay quatre-vingt-quinze ans ay cent années ak cent dix ans ak cent treize ans sunu maam yooyu nañ leen daan dundee ñu ne hygiène de vie ban hygiène de vie la ñu amoon fan lañ ko tegoon ñu ne ah ci valeur vertu ak imaan parce que nit boo amul gëm-gëm da mel ni ngelaw. am na lu ñu gëmoon moo taxoon ñu daan jomb yenn yi sunu baay bi l'émérite mbay Mbaye am naan ñu buur ba Jolof ba mu bëggee dem Màkka tal mu karama ba mu demee ba war a dem dañ ñëw ne ko ah dëkk bi kat dafa am sécheresse nit ñi dool nañu amul lu ñu lekk gàncax gi dee na compliqué na. Mm-hmm. mu fomm Màkka ba daal ne dem leen ci dëkk yi fépp fu am lekk ngeen jënd la mu waroon demee Màkka ngeen jënd ngeen indi nit ñi dundee ça s'appelle leadership. loolu mooy ki maanaam ku ñu ne séddaleel. Hmm. yow waroo séddu moo tax bu ñuy toog di gis lee président africains ñuy am teraanga seen peuple yi di dee dañ naan ñii ñoo baadoo la baadoo baadoolo xulil Lamet Aydara doon wax nan badoolo badoolo <laughs> parce que am loo xam du xel maanaam yow vous êtes élu hmm. yow doo fay courant doo fay ndox doo fay téléphone yow sa lépp mat na hmm. luy doyee profit ba xay xañ say mbokk. dañu war a su gëstu euh, boo faloo li nga war a njëkk a def. Mhm. mooy xam ne yàlla sédd na la. yow falu nga yàlla sédd na la say doom du ñu am souci say soxna du ñu am souci sa kër du ñu am souci sa bokk du ñu am loo soxla boo nekk kër mu agsi waaw yow looy dooyee dajale. Mhm, mhm. looy doyee profit moo tax on est super d'accord qu'on nous dise que le président de la a pris un décret stoppant changeant le décret pris par Macky Sall mhm. de soit disant payer les anciens ministres anciens ministres ka mhm. liggéey ba liggéeyatu lu lay fayee. wax yàlla <laughs> ak li nga woon ci nag mooy mbirab waa ba ji ba ak dëng te <laughs> mooy nguur gi fi nekkoon dañoo dëngoon dañoo dëngoon ña ca baax jàpp naa ne ñoo ëpp waaye la leen muuroon tiim leen di dogal moo sonal. Mhm. ay jii nii les sénégalais lu tax ñu mel nii te meluñu ko woon bu njëkk bu njëkk sénégalais lu ñu ko daan jëwee jub baax. Mhm. classe. Mhm. élégant. Mhm. léegi sénégalais waya waya nañ ma baal ñi mel ni ñun parce que la dépravation. et la déperdition dafa attendre benn niveau. boo xam ni da ngay gis xale bu jigéen bu rafet bu yàlla defal taar teraanga nekk koo xam ne dafa war a toog góor gu baax daw si wut si ka non mu jël cëram yëpp teg ko ci internet bi ci tiktok bi taxaw bala ma dee ñu 360 que xulin kii. teg seen benn way. Hmm. wëndeelu baa leen bëggoon sax bëgg a wàcc. ak lu nu rafet rafet. lan lay ci lan lay dem nga gis commentaire yi ñu leen di wax wax yu ñàkk kersa. Hmm. wax yu bon. Hmm. yow nga toog après yow nga naan mais kii lan moo ko war yóbbu ci niveau bi mais parce que dafa am loo xam ne dañ ko jël wàcc ka loolu ñu wàcc lañu war a yéegalaat. yéegalaat mais ci pour pour defaraat dëkk bi. Uh-huh. defaraat nit ñi te pour nga defaraat dëkk bi defaraat nit ñi faaw nga fexe ba ñuy tal. sëñ bi hmm. loo talul doo ko lijjanti sa njaboot boo leen talul doo leen yar hmm, hmm, donc da ngay fexe ba boroom kër gi tal njabootam kooku nag état moo kaa liggéey ñaar lay def muy ban ak ban lijjanti ndox mi ball ci Sénégal mbay mi mën a am njëriñ koppar di am ak teraanga. Mhm. nit xel yi mën a dal xel yi dal <laughs> ñu yar. xel ma ne ci ci côté boobu noonu nomination yi parce que dañuy gis ay ndaw yu bari yoo xam ni euh, jox nañu leen yenn post de responsabilité est-ce que jàppoon ñu loolu euh, tey gouvernement bi mi ngi nekk euh, di def benn politique boo xam ne dina influencer pour que ndaw yi mën a rêver xam ni moom kët xëy na su góor góorgóorloo tegu ci yoon bi leen ni li jomb ko en fait. nomination yi nga xam ni euh, def nañu ko récemment. xam nga xam nga poste de direction yi gis nañu ndaw yi ci bare bari. dañu leen a jox ay poste de euh, responsabilité ah. c'est la plus belle chose qui puisse arriver au Sénégal. Mm-hmm. pour man. Mm-hmm. mais sëñ bi ñi ñuy wax ndaw. ils ont quel âge quarante ans. waaw trente ans. trente ans. Mm-hmm. yow à vingt ans da nga war a samp kër. moo xam nga def. non non je veux dire non uh-huh. non non je veux dire. xaar ma ñëw à vingt ans bu Sénégal jaaree yoon. da war a samp kër maanaam xale bi kat am na 18 ans. Mhm. jigéen la. Mhm. ah nañ fexe jox ko boroom kër comme ça du mooy. Mhm. comme ça mu nekk ku jub. comme ça looloo indi woon sunu maam yi ci jamono. 14 ans 15 ans ñu maye ka tubaab ñëw ne non non non xoolil tubaab ñëw ne déedéet yéen a ngi yàq xale yi ñii lii lii c'est violent cette tradition là. même tubaab bi mooy ñëw ne la nekk leen ay góor jigéen seen sarab lu may baña tudd ngeen baal ma <laughs> ils sont offusquants lu barbare noonu nit mënu ko imaginer ñoom ñu ñëw ne la non xale bu jigéen bi ngeen di takk. Hmm. heure bi dafa teel non non bàyyi leen ko mu libre. bàyyi leen ko mu nekk voilà mu jàngi mu def kii oui dafa war a jàngi bàyyi leen ko mu dund mu dund laay fam tubaab def ko lesbienne jël ko góor ki def ko góor jigéen. Hmm. même tubaab boobu dindi la ci sa valeur yow. moo tax ma ne la waaw léegi léegi bu ñu delloo bu ñu bu ñu delloo ci ne mhm. xale yooyu ñuy nome man ma jàpp ni c'est excellent mhm. nañ teg ci seen wet ay mag yu baax ñu mën leen dimbali. xale yooyu bañ a prétentieux bañ déglu bañ a di déglu mag yi jàpp ne ñoom rek la mhm. ñuy déglu mag yi nag sëñ bi am na fi mag yu baax yu mat a déglu waxuma mag yi mel ni hmm, lu ma hmm, de lu ma bañ lu ma bañ a tudd mag yu baax yoo xam ni seen fa ñu jaar ba tey ba sàng wax dëgg yàlla rafet na nu bàyyi leen nopp bàyyi leen xel ñu naan la nangam ak nangam ba muy am jamono bii nii la diw taxawee woon nga ne ah d'accord kon baadu loolu tax mu échoué ne voilà kon il faut éviter ñu rectifier parce que à 30 ans jëm 40 ans. Mhm. ñu jox la post de responsabilité xulil dañ la war a encadrer. Mhm. li ci bien nag. li ci bien mooy yaa toll ci âge doxal ka donc da ko war a doxal. n'empêche dañ lay encadrer kan moo la war a encadrer am na mag yu baax yi fi ne am na leneen ak leneen ñi nga xam ne ñoo jiite yàlla jox leen cëru jiite nu doxal nag na mu war a doxee. lépp tegu ci ak. c'est simple ak yoon. kese <laughs> d'accord am na solo baax sax ngi lay jaajëfal bu baax a baax. noo ko bokk yàlla na yàlla defar lépp defar réew mi mm-hmm. ñëpp bien les Sénégalais méritent de bien vivre sëñ bi quand tu vois euh, le Dubaïote qui dort jusqu'à <laughs> maanaam qui fonctionne la nuit. Mmh. À Dubaï, ils fonctionnent la nuit. Ils ne pas le jour. Parce que, au-delà du climat, Khalil, mmh. ils ne sont pas ouvriers chez eux. Le Qatari n'est pas ouvrier chez lui. He's a boss. Il est patron chez lui. Le Sénégalais est ouvrier chez lui. L'étranger est patron du Sénégalais chez le Sénégalais. looloo mat lijjanti. d'accord jërëjëf. am na am na solo bu baax a baax. jërëjëf euh, amoon nañu mbégte dalal la tey suñu plateau Paasan xam naa dañu xaw a guddee tàmbali nag euh, trop trop euh, mais vraiment bëggoon nañu point yu ci bare bari ñu dugg ci jaajëfal Dóor waar bi nga xam ni moom moo nekkoon ci technique bi doon ko assuré jaajëfal ñi nga xam ni ñu doon bàyyi xel Fatou Fam Mbodj moom moom ci fidèle internet yi ak kile di Alioune Badara ki nga xam ni moom moo di Ndiouga Ndiaye ñu ngi koy nuyu Mor Gueye ñu ngi nuyu itam kile di di Serigne Gueye ñu ngi woon ci commentaire yi euh, Pape Matar euh, Gueye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom aussi Dani jaata euh, ñu ngi koy nu en tout cas ñi nga xam ni ñu ngi woon ci commentaire doon ànd ak ñun émission bi le xam naa ni su ma wàccee ki leen di Samba Ndiaye mi ngi ñëw ak Siré si léegi léegi. il faut dire nga baal ma. Uh-huh. il faut dire à nos confrères. kilifa yi nañ baal mais si la presse reprend sa place d'antan. Mm-hmm. sacerdotal, dans le vrai sens du terme, mm -hmm. si la presse redevienne beaucoup plus conséquente vis-à-vis de l'information sincère, mm-hmm. les réseaux sociaux dootu ñu nekk di am influence bu négative ci nit ñi encore que les réseaux sociaux yi ñuy wax ils ont sauvé le Sénégal. effectivement waaw am na en tout cas yéen nañu eh, ci benn côté rôle bu am solo mais ngeen xaar euh, ki la di si